day eh, am nañu mbégte lool ñëw tey fii eh, ci Touba eh, ziyaare si xalif général des Mourides sëñ Mountakha Mbacké ñëw ànd feek sunu kandida yëpp ñoo taxawe nii muy sëñ Galas Kaltum Mbacké ànd ak sëñ Cheikh Abdou Lahat Mbacké ak sunu ay responsable yi fi nekk yëpp voilà Laxat euh, Seck mi nga xam ne moo jiite comité électoral bi euh, ku lim juum waaye ñoom ñëpp a ngi fi soxna yi tamit ci la ñu bokk ñoom ñëpp a ngi fi euh, macha allah ñu waxtaan ak sëriñ bi mu yeb ñu it sëriñ bi ñaanal ñu dañ koo jottali si d'abord ziyaaru président de la république doomam son excellence monsieur Macky Sall ah wax ko it ne ko président mu ngi lay biral ne liggéey yi nga xam ne am na ko fii ci dëkku Touba bi ah, dina ci continuer dina ko gën a baral waaw ah, loolu doon contribution ci liggéey bi nga xam ne moom la xalif général di liggéeyal sëñ Touba a ah, sëñ bi it yeb ñu la mu nu digal nag mooy lu nuy def rek nañ ca jiital jàmm ndax jàmm ji réew mi eh, mu yeb ñu it nañu na kaddu yi rafet na kaddu yi teggine te am na yaakaar it ne ah ni mu ñu xamee ndax ay waa këram it ci am na ñu ci ne ay doomam yu ne ci liste bi ah eh, dinañu ñu nit doxee eh, ci ay ndigalam eh, ba lépp lu ñuy def rek doon luy defar Sénégal ci wàllu xalaat ci wàllu proposition a ah, ñoom ñi it wax nañu ko ne ñuy ñaan vraiment mu ñaanal ñu ñu dese suñu sago ndox sago dafa am solo ci àddina sago nag mooy mu ngi tàmbalee ci nga xam ne Sénégal benn bopp la nga ban koo xaajale bañ a xool mbiru waaso bañ xool lépp loo xam ne lii mën naa féewale Sénégal ndax ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ah ñu tàllal sunuy loxo it ne sëñ bi mu ñaanal ñu ndax ñu am ndam waaw loolu it eh, bokkoon na ci li tax ñu ñu ñëw tey eh, ànd koog suñu responsable yëpp kenn manqué wul eh, ak ni ngeen ko gisee vraiment ñoom it ñu doon benn ànd doon def benn say ci département bi yëpp bi ñu maire yëpp ñëw nañu ñoom ñëpp a ngi fi responsable yëpp ñëw nañu euh, candidat yëpp ñëw nañu ba alhamdulilah rabil alamin am nañu yaakaar bu baax a baax a baax a baax euh, ne dinañu am ndam am nañ ci yaakaar bu baax. ndax euh, sunu représentant yi nga xam ne ñoom ci Touba la ñu nekk am nañu yaakaar bu baax ndax ñëpp xam nañu leen d'abord ci liggéeyal sëñ Touba xam leen aussi ci seen teggine ak seen kaddu yu rafet. ak ci seen engagement kon ñooñu am na nañu yaakaar ne bu nu taxawalee Touba ci assemblée ba ah waa Touba dañu ci am kontante dara du leen ci métti ndax noonu la ñu leen xamee ñu ngi ànd ak ñoom léegi mu mat fukki at waaw te mosuñu leen di wax dégg nu wax lu teggi ne wut euh, mosuñu leen dégg wax ñoo xam ne lii ah, askan wi ah, dana xaw a jaaxle kon euh, loolu it euh, ci li tax ñu jàpp ne dinañ am ndam ci la bokk ndax ñoom vraiment fii ci Touba ak ci àddina bi yëpp. Euh, vraiment euh, ni nu doxalee ba léegi euh, macha allah vraiment dal na sunu xel ci ci ci ci teggine ci ci yiw ci yiw ndax loolu la ñuy xaar ci njabootu Sëñ Tuubaa yiw ci yiw yiw da ci am solo lool yiw nag mu ngi tàmbalee ci kaddu yu rafet ci kaddu yu rafet ak ci doxalin bu rafet te macha allah ñoom ñii day sunu ay camarades lañu waaye suñu ay sëriñ lañu booba ba tey it wax dëgg yàlla voilà satisfaction rek la ñu am ci ñoom ak soxna yi aussi ñu wax ak soxna yi ah ñu ngi ànd ak soxna maam Xari Mbacke mi nga xam ne opératrice économique bu mag la fii ci Touba ñëpp xam ko euh, voilà moom taxawaay woo xam ne wi aussi euh, sigil na jigéen ñi euh, comme man mi nga xam ne tête de liste laa doon jigéen moom it mën nañoo jàpp fii ci tuba sigil na jigéen ñi ak ñi na ci list bi yëpp ku lim juum Euh, soxnay Touba it ku leen xam xam leen ci nangu liggéey ak euh, ci jaamu yàlla ak gëm sëñ Touba. bu fekkee ne Sénégal la ñu jiital rek di waxtaanee nu nuy fexe ba mbéy mi dox nu ñuy fexe ba napp gi dox nu ñuy fexe ba xale yi am liggéey nu ñuy fexe ba jàppale jigéen ñi seen liggéey nu ñuy fexe ba njàng mi dox nu ñuy fexe ba wërgu yaram wi dox loolu vraiment euh, du am benn problème moo tax foog mu doon campagne xel bañ doon campagne xeex. kaddu yi jub muy kaddu yoo xam ne yii ak nu nu mën a feewaloo rek. bu nu dem ci yëfu waaso euh, nañu jàpp ne Sénégal benn bopp la waxtaanu waaso ñu teg ko fële loolu baaxut ci réew loolu day day féewale réew te alhamdulilah rabil alamin mag yu mag ñi fi tëdd ah ba ci fii ñu ñëw muy dëkkal euh, xaadimu rasul ah defe naa ne kenn xàmmewu fi kenn mhm. voilà lii boole ñëpp rek mooy gëm yàlla gëm yonent bi ak gëm sëriñ bi gën sëriñ Touba donc loolu it euh, mooy li nga xam ne mooy kaddu yi ganu kan ganu département de Mbacké ganu kan ganu benn Bokk Yaakaar ganu kan mooy soxna Aminata Touré mi nga xam ne moo jiite liste nationale bu benn Bokk Yaakaar ak ñi mu àndal ñëpp ci sama tour ak tuuru comité électoral départemental Mbacké en tant que tête de liste ànd ak Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaynde Fatma Abdou Lahad Seck mi nga xamante ni mooy coordonné comité électoral bi ak mbooloo mi ñu àndal yëpp góor ak jigéen soxna Rokhaya Diouf soxna Mariama Ndiaye ak ñi ci nekk ñëpp di sant yàlla di julli ci bi waaye di am mbégte lool ñëw ziyaare si Cheikh Madul Muntaxa Cheikhul Khadim tàllal ko ay loxoom ci ni ko ko président sante moo ñëw indi ziyaaram indi yóbbante président bi ci sëriñ bi bi mu ko defee dégg nañ kàddu yi mu jëlee ci sëriñ bi kàddu yi dal xel la ndax weesuwul mooy kilifa diine di sunu wayjur di wayjuru président soññee bu rafet bi nga xamante ni moom la tàmma def ci waxtu wu mu soññ ko soxna si te looloo lay soññee président loolu la ñuy soññee mooy ñuy wax wax ju rafet di dox doxin wu mat a dox loolu boo koy def ñu la war a dégg danañ la dégg te bu ñu la déggee danañ la amal njariñ kon ni ñu mën a tënke loolu rek mooy li ñu jëm ñoom it ñu ñëw taamu ubbeeku Touba fekk ñu fi muy sunu mbégte it ñun ñu dëkk dëkk bi ñu ngi ko ànd ak sunu bàjjen soxna maam Xari Mbàkke di ci sant bu baax mais di leen ñaanal aussi ci tànk yi ñu yëkkati ba jël seen xel ak seen xol def ko ci Touba ngir ubbee fi campagne bi sëriñ bi ñaanal ñu ñu ziyaare ko ñu waxtaane ak moom kàddu yoo xam ne dal na suñu xel ndax mooy kàddu yoo xamante ni moom la ab jullit war a doxe moom la ab taalibi war a doxe kon man ni ma koy waxee rek dama jàpp ni képp koo xamante ni yaa ngi ci liste bi yow yaay tëdde liste bi liste bi ñi ci nekk ñooy tëdde liste bi du Galas Kaltoum ku ci nekk la ñu nekk di liste nationale ak ñu nekk départemental ak responsable yi ci dëkk bi kenn ku ci nekk na gëm ne yow yaay tëdd listu Benno Bokk Yaakaar ren ci Mbàkke parce que lii tax liste bi dox population bi la lii tax mu dox ñëpp la góor ak jigéen kon ñi ngi tàllalaat ñëpp loxo di leen wax ñëw leen ñu àndandoo liggéey bi di dox lu rafet tey sàmm kàddu yi nga xam ne moom la ñu génn suñu gémmiñ di ñaan yàlla suñu borom bu ñu àggee ci la 31 juillet suñu borom defal ñu liggéey bi moom xam nga depuis pré campagne bi ubbi ñu ngi ci woon kon li waroon ci xam ndax liggéey war nga cee dem ñu ngi ci woon amuñu noppul démb lañ campagne bi bi ñu jullee it ba pare ñi mën a ànd dem nañ seeti ay kilifa diine ci dëkk bi ziare leen seeti yenn responsable yi nga xamante ni yàlla dafa dogal seeni yaram sutante ñu seeti leen saafonte ak ñoom yëkkati la ñu am muy benn muy ñaar teg ci seen loxo ngir ñu xam ne ñun dañ leen nekkal ci terrain bi mais fi ñu tëdd ñoom danañ yëg ne ñii dem kat bàyyi nañ leen fi ndax lu leen dal mais ñoom ak ñoom ñoo ànd sakk seen ay ñaan aussi ñaanal leen suñu borom yëkkati leen ba ñu del sax ci liggéey bi waaw li ñuy wax waa Touba mooy ñun doomi dëkk bi lañ te jàpp naa nit li nga ko miine nga koy jàppee yar lañ ñu miine ak i teggin akuk taalibe ci yar ak i teggin akuk taalibe dañuy waxtaanee ak nit ñi ndax li ñu soxla ci nit ñi la nekk. ci gannaaw soxna Aminata Touré jàppe ko président de la République jàpp ko jàppale ko mais àndandoo ci suñu biir ci département bi àndandoo nekk benn bi def benn bloc maire ci commune bi yëpp ñëw nañ responsable yëpp ñëw nañ kon jàpp nañ ne ñun président mi ngi ci suñu biir ndax bëgg-bëggam bi mu yëkkati teg ko ci ay loxo ngir ñu war koo dox pour mën a mottali ab liggéeyam loolu yàlla dogal ñun ñëpp ñoo ko àndandoo ci dëkk bi ci jàmm ak salaam.